jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte rek mooy suñu yitte CCB nag du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci ñu ngi nuyu nag bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ni ñooy aar daara waaye di ndokkeel baax ñi aar jikko yi ak ñii di waa Jamra waa Jamra goo gi lañ dalal fii si CCB tey jii incha allahu rabbi ñu ngi nuyu nag bu baax waa bitim réew di leen ñaanal ndam di leen ñaanal ay xéewal seen jafe-jafe ya nga xamante ni amee nañ ko foofa ñu nekk yal na yàlla kart nañ leen ba jafe-jafe ya wàññeeku ndax it donte munta dañit mu wàññeeku bu baax a baax si mbirum kayit mbirum dëkk mbirum lépp loo xam ne ña ngi ko fay lijjanti tamit jafe waaye ña xamante ni ña ngi fay am xaalis di ko yónnee fii seenum réew ñu leen di nax di ko lekk wala ñu yónnee fii ab ñu leen di ay terrain di ko lekk ak jafe yi am yëpp yal yàlla faxas ko waaye yéen nekk si mi ni ngeen yërëm ñu nekk bitim réew bu baax a baax a baax bi jàppale leen son yi bu nag tey jii émission bu mag bi di seen xalaat Baye Cheikh Fall di leen ci gunge ñu ngi dalal maam Makhtar Gueye fas yéene waxtaan ak moom si ay kàddu yu am solo incha allah rabbi ak it laaj yu am solo ndax it li fi jaar bari na maam Makhtar Gueye it procès yi nga xamante ni gagné na ko bari na ndax ñu ngi si réew mi fekke nañu ko ñaar ñi nga xamante ni dañoo fóonante woon si mbirum Wally Seck maam Makhtar Gueye gis nga taxawaay bi mu ci amee waaye ki nga xamante ni staram gépp ci mbirum ruggi tubéy la ko la ko amee lépp ku ko xam ki sumi woon silib bi la ko xamee sumi silib dong la ko Sénégal gépp xamee Mame Makhtar Gueye taxaw na ba loolu duutu fi am rawat na télé ba ko bëggoon a teg ñu ne ko doo ko fi tegee te Mame Makhtar Gueye nee na leen topp ba su YouTube ba duñ ko fa tegee waaye am na beneen boo xamante ni dollee ko si waat na mooy ñoo xamante ni sony bu waxuma la sumi silib maa ñu ngay sëy boobat Mame Makhtar Gueye incha allah rabbi daañu si waxtaan ak moom ak ban taxawaay la ci amee ak yeneen ak yeneen incha allahu ba ñu ko sonyi bu jóob waaye laataa ñu ko sonyi bu jóob dañuy dem ànd ji ak baay Cheikh Fall mi nga xamante ni moo leen di may émission bu mag bi di leen wax ni leen jël leen ay numérom ngeen woo ko am na garab yu set yu sell yoo xamante ni moo ko liggéey ci loxoom te macha allah baay Cheikh Fall ay numéro mi ngi noonu bu Diop nañ dem ànd jeeg moom te ñëw ànd ak Mame Makhtar Gueye Jamra Serigne Cheikh fal borom sifa un ngeen di àndal kenn dootu ko laajte ci biir réew mi ak ci biti réew Sénégal Afrique ba Europe ñëpp garabu jabetam yi la ñuy waxtaanee Serigne fal borom boo amee jabet demal hôpital nga xool sa jabet fan la toll ngir del si ñu jëflante cëy bu ñu paree yéen ñi am jabet bu leen tànqamlu moo mën ci jabet yéen ñi yor ndoxum siti na seen xel dal mi ngi ci garab yu doy waar lépp lu jëm ci hémorroïde ñu yor xeetu gémmiñ te feebar yóbbee leen ko dawal ngeen seeti Serigne Cheikh yow mi am feebaru biir la ko dawal nga seeti Serigne Cheikh Fall ndax foofu la yam Serigne Cheikh Fall ni ma bàyyi naa xel ñi nga xam ne ñoo yor seeni soxna te mënatuñu ci ñoom dara maanaam ñi tële wala sax ñi néew kàttan Serigne Cheikh Fall mi ngi ceeg lu doy waar mille force attee boo xam ne loo lekk lu mu bari bari bari tàngalal rek ndox nga def ci dalay digérer lu gaawa a gaaw a gaaw yow mi am ballonnement seere lépp lu jëm ci listixaar ak sangatu ubbeeku bayre ngeen mën a jokkoo moom ci ay numéro téléphone yooyu di affiché ci barre écran bi Serigne Cheikh moo leen di may seen xalaat waaw kay jërëjëf soñ bu Diop euh, xam naa ne mi ngi ñuy làmbal maam Makhtar Gueye bu ko defee ñu daal di dugg si waxtaan wi kon soñ bu ñu ngi lay jaajëfal bu baax moo nekk si xarale gi waaye di jaajëfal bu baax euh, sa Ndiogu Mbeng moom it di ko ndokkeel si taxawaay bi nga xamante ni amee na ko ci réew mi soñ bu maam Makhtar anamu. waaw bisimilah ah mi ngi si biir maam Makhtar ñoo ngi lay nuyu. waaw kay ñu ngi leen yaa ngi si jàmm. ñu sant borom waaw yaa ngi si site bu mag bii di CCB son bu Diop mi ngi si xarale gi ngay déggante ak Baye Assane Mesere ñu bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan wi. waaw xanaa di dellu di amaat mbégte rek ci dalal bi ngeen ma dalal ci seen ëtt bu tëdd bi di GCB nga xam ne euh, sénégalais xam nañ ne du ma fi gan. Mhm. ndax tàmm ngeen di ma euh, di ci dalal pour ñu mën di sottante xalaat ci tolluwaayu réew mi. dëgg la. Eh, te lépp daal eh, eh, luy jëme askan bi kanam rek kon yàlla na yàlla yàlla yàlla leen yàlla saxal ci taxawaay boobu rek. dëgg la. Hmm. waaw kay jërëjëf maam Makhtar kon li nga xamante ni moom la ñuy doore muy li nga xamante ni mooy Jamra taxawaay bi nga xamante ni amee nañ ko ci réew mi muy lépp loo xamante ni ak mbon la di yàq société bi dañ siy taxaw. moo xam mu jëm si wàllum góor jigéen moo xamit mu jëm ci loo xamante ni day yàq jikko yi loo xam ne société bi soxlawu ko ba bi si mujj rek muy xale bi nga xamante ni day théâtre nganjaga lay na mu sumi tëbayam ji ndaw ji wane kooku taxawaay bu ngi si amee ba yàlla def ca ndam Sénégal gépp kontaan si taxawaay bi nga xamante ni amee nga ko ci ak ñaar ñi nga xamante ni ay fecckat lañ woon fóonante di ay góor taxawaay ba nga ca amee ak yeneen ak yeneen maam Makhtar Gueye ndaw si noo def ba euh, yoon daal di wax ni théâtre bi bu mu fi daweeti maam Maxtaar maam allo. yaa ngi may dégg. yaa ngi may dégg maam Maxtaar. allo. waaw maam Maxtaar maa lay dégg. allo yaa ngi may dégg. lay dégg bu baax a baax. waa xaaral ma déplacé ndax kii dafa xawoon nañu dafa am problème mu réseau. léegi yaa ngi may dégg bu baax. maa ngi lay dégg maam Maxtaar. waaw kay macha allah waaw xam nga yàlla dafa dogal. Mhm. comme niñ ko baaxee di wax rek ci suñuy émission yeeg suñuy conférence yi ak euh, yeneen xeetu jokkoo ak askan bi mhm. euh, Jamra wootewuñu tarixa wootewuñu daayira wootewuñu dara mhm. ñun daal ay ndongol daara yu xeebu lañu euh, yu askano ci këru diine yëpp Tuuba Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen dina Baay Laayeen Mm. famille omarienne yàlla nattoo ñu. Mm. ñu ittewoo euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy sàmm liggéey bu rafet bi mag ñu baax ñu bàyyi. Mm. ndax mag ñu baax ñi tëdd ci bërëb yu tedd yooyu le euh, kenn mënu leen fay bopp ndax koo xam ne moo la xamal xaala laahu yàlla nee xamal la xaala rasulullah yonent bi nee boo jegee ne da nga ko bëgg a fay bor loolu euh, yéene taalibi bu xër la rek li ñu mën kay mooy delloo la jukkal mën a delloo jukkal mooy taalibe yooyu mooy wax léegi ñu joxante loxo seqandona li ngir sàmm ko aar ko ba ko bëgg a xajamal waa nga bëgg taxaw ba suuf ak koo mën a doon lobbi góor jigéen yeeg lobbi franc-maçon ak lobbi yi nekk ci série yi defar théâtre yu bon yi hmm. di jóg jàmmaarloo ak lu ne alors ndaw soosu nag hmm. loolu mu def ñun ñëpp a ko gisandoo hmm. ndax théâtre am na fi ba tàyyi depuis ñoomin jamono Cheikh Tidiane Diop bu daaree Kocc Mm-hmm. ak film yu daw ci cinéma yi Moussa Sène Absa mm-hmm. Djibril Diop Mame Beyti euh, Ousmane jàmbaaru góor yooyu nga xam ne mm-hmm. euh, sax la ñu woon ci cinéma ak ci télévision ak ci théâtre ndax euh, daan nañu yar xale yi ci kaw di di leen xamal lu baax waaw waaye terewul daan nañu wax njubadi gi nekk ci société bi te war ko jubbanti waaye dañ ko daan odd ci scénario bu teggi ne ba tax na xale yi ku ko seetaan jële ci jom hmm. waaye série tey xale yi dañ koy seetaan jële ci ñàkk jom hmm. ndax ñàkk jom weesuwul jigéen bu muskàllaf toog hmm. di joxoñ awraam naan sama lii ko moom ku ma neex laa koy jox loolu ku ko seetaan ñàkk jom nga ci jël wallaay ndeysaan waaw kon nag suñu jàmmaarloo ak infidèle eh, eh, yàlla def ci ndam du bees ndax daaw lañu ñu jëkkee woon ak moom wane na fi ñu ñaaw a ñaaw yoo xam ne teggin mayewul sax ma di ko waxaat fii. CNRA mhm. woon xàcc rek dóor daf ko woo dànkaafu ko. Mhm. borom infidèle daal di jël engagement. Mhm. wax ne épisode yi di ñëw. dina góorgóorlu segg ci lépp loo xam ne dafa safaanook suñu xar baax. ak valeur Sénégal. ñëpp gëm ko. ndekete da doon yeetal nit rek. mooy li tubaab di wax reculer pour mieux sauter. Mhm. loolu la def nag fan yi passé mhm. ndaw soo si ñu naan leen a géy mhm. alors Evenprod jàpp ko futti ko anam gu ñaaw ba ci silib bi alors lépp pour am ay vues lépp pour am ay xaalis loolu du dëgg du yoon ndax bu fekkoon daf ko def ci biir néegam rek wala mu def ko ci téléphone mu yem ci digganteem ak moom ak ndaw si kenn du wax waaye penc mi ñëpp ko bokk rawatina nag dafa nekk penc moo xam ne ku ci nekk danga ci am loo moom am loo bokk ni nit ñi mm-hmm. waaye ñoom lañu moom dañ ko jël ba mu jeex tàkk la ñu ni ak ñi ñëw di ko ni nit ñi loolu mënul ne mm-hmm. rawatina fii ñu koy jàllale ay youtube ak yi ñoom seen mm-hmm. day fës ci àdduna bi chinois yi di ko gis japonais yi di ko gis waa Burkina Faso waa Benin waa France ku ko gis na daal waaw Sénégal jigéenu Sénégal ni nañu ñàkkee jom ñu ngi ñu tooñ parce que baaxee suñu maam maam yàlla daf leen baaxee mhm. barke jigéen ñu baax ñooñu mooy watatu di watatu ba si jigéenu tey ndax jigéenu Sénégal dafa am kersa mhm. jigéenu Sénégal dañu am teggin jigéenu Sénégal ñàkkuñu jom mhm. kon ñoom waa Evenprod amuñu droit di wut xaalis di wane xar kanamu Sénégal bu dëppoowul ak li am moo tax ñu songaleen nag CNRA jox ñu dëgg dëgg gi nag lenn la CNRA hmm. ne ko comme que dànkaafu nañ la ginnaaw bi la Jamra plainte hmm. te plainte bi du Jamra rek dafa hmm. nekk plainte boo xam ne Jamra signé na ko comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Fall di jarbaatu xalifa bi parce que moom lu ñuy def ñooy ànd def ko moom signé na ONG Daaral Quran wal Ihsan bu imam Aliou Dia bu Tëngéej signé na ko sa naataango bi nekk 7TV ñu di ko de la fédération des jeune Tidjane signé na. alors moo tax bi yoon nag ñu soxla ak doole. parce que ñoom moom alors benn plainte bi ñu jébbal ko CNRA bu Babacar Diagne jox nañu dëgg. nee na comme que kii ngeen plaintaat plaintoon ngeen ko plaintaat ko mu di ko defaat di ko defaat. parce que tubaab di wax récidiviste. loo tax daanu ren bi tar. daan bi moo di. CNRA bind na télévision yi Sénégal. Ah. nee leen bu fi kenn jàllaleeti bande annonce bu bon boobu la. Mhm. ñaareel ba. ñeneen mhm. bu fi télé bu fi jàllale. Mhm. prochaine saison infidèle. dana am daan yu métti ñu teg ci kaw. yoo xam ne mën na dem ba deux millions trois millions ba dix millions. waaw Mame loolu de am na solo mais ponkal mu ñuul moomu nga xamante ni tëddoon na fi jigéen ji toog si kawam di tekki baraaketam bi pour mu war a sëy ak moom mu ni loo kooku noonu dañ koy gis seen TV bi mi ngi daw théâtre am bi may wax ak yow ni ngi daw seen TV bi dafa mel ne théâtre yooyu yëpp daal dañuy daw seen TV bi ndax yéen it dem ngeen seen TV bi ngeen waxtaan ak Bougane pour théâtre yu bon ya nga xamante ni dafay jaar mu bàyyi ko ak yeneen télé moo la a xam yu bon yi jaar ci télé hmm. parce que saa wu ñu hmm. eh, am na ku koy toogal ca euh, tribunalu audiovisuel ah dana am ku ñëw si jóge si waaw waaw Euh, plainte daaw bi. Hmm. ki ki toogal borom infidèle. Hmm. ñëwoon na. Hmm. mooy ki defar série bi ki ko defar filmer ko. alors tele ba ñu koy jàllale. te ko fay toogal itam kooku ñëw na. Babacar Diagne yëkkati kàddu daal di ne nag ñun nekk fi kenn. nekk fi pour lu neex Jamra walla lu neex Sen TV wala keneen. Euh, dafa am ay charte yu ñu réew mi jox pour ñu di ko saytu. mooy lépp luy film te safaanoo Hmm. ak suñuy valeur kenn du ko fi bàyyi mu jàll. Hmm. kon moom moo la gën a xam li xew. Hmm. alors bu ko defee. waaw moom moom moom bu ñu ko gisee. chaque jour mi ngi toog di di di waxtaan ak Sénégal yi lan lañ la ñuy def ba Sénégal jëm ci kanam nan la ñuy def ba jukko yi baax. ah day na waar de. ah teleem bi saa bu ñëwee théâtre bu bon bu njëkk a ñëw mën naa jàll si teleem bi ñuy summi ay baraakati génn ay ay geen ak. waaw summi ay silib ak yëpp di jàll si teleem bi. day na waar de te xam nga ñi ñoom ñu ngi ubbi di xool. waaw xam nañu télé sàngama ngi fi télé sàngama ngi fi télé sàngama ngi fi waaye xam nañ ban télé hmm. moo fi dawal lii lëmbee réew mi hmm, hmm. muy torox xeetu toroxal jigéen bu bu yées bu bu kenn mësul def xam nañ télé bi muy daw moom borom télé bi itam xam na ne mu ngi fay daw xam na ne mi ngi fay daw voilà léegi nag magum jëmm nag kenn du ko téye naan ko lii baax na ak lii baax na ndax magum jëmm la xale la ñuy jàpp di ko tekki naan lii bu ko defati ngor bu ko dina bu waaye magum jëmm moom moo la gën a xam fuuf li mu def Mm-hmm. ñun dañu ne nag du ñu nangul benn doomu aadama. TFM mm-hmm. ak Sen TV ak RTS si yem. ci kaw wutum xaalis. Mm-hmm. nga jàpp suñu valeur di ko jalgati di sol sa poos xaalis. ku ko mënti def dinañ taxaw jàmmaarlu ak yow. ak luñ ci mënti fekk. waaw YouTube bi nag moom ci laa. alors léegi nag ba seera euh, tegee daan boobu. ma dégg gars yi ci réseaux sociaux yi naan waaw. xañ ngeen ñu xañ ngeen ñu télé yi. waaye waaye YouTube a ngi si. ma neen aha YouTube a si. waaw ñun suñu tontu lenn la hmm. mooy unitam itam nee nañ leen procureur ngi fi. Hmm. ñu ne ma ah ma ne leen waaw. Hmm. ndax Babacar Diagne li mu def. mooy euh, sukkandiku ci sañ-sañ yi ko sart yi may. Euh, ci kaw tele yi dox fii ci Sénégal kooku la sañ-sañam yem. waaye bu génn télé jëm ca plateforme yu mag yi mu di plateforme internationale yu bëgg sañ-sañu Babacar Diagne eggu fa. kooku sañ-sañu procureur ñu ne ma ah loolu nu mu demee ma la benn ma leen benn loi la. Mhm. boo xam ne brigade cybercriminalité bañ koy créer. Mhm. Euh, ci la ñuy joyanti loi wu code pénal boobu mu di la loi deux mille euh, euh, kii deux mille deux mille huit zéro onze. Mhm. bu vingt cinq janvier deux mille huit. loi boobu nee na. aaye nañ. kuy jël jumtuwaay yu xarala yi. di fa jàllale ay message di fa jàllale ay image di fa jàllale ay film ay théâtre ak ay série mm-hmm. te muy porter attent à nos bonnes mœurs maanaam di jalgati suñuy xar baax suñuy caada ak suñuy valeur mm-hmm. ma ne leen firnde bi mooy mm-hmm. euh, jëmm jooju te presse bi daan ko tooñ di ko dàkkantale l'insulteur public numéro un muy Assane Diouf Assane Diouf man leen bi caabi féete na ko fi ginnaaw juróom-ñaari weer ñu ne ko la mu def ba caabi féete na ginnaaw est-ce que si télé la ko defee ñu ne ma déedéet ci ci YouTube ma ne ah voilà. Hmm. Eh, kon nag foofu procureur. foofu hmm. procureur moom moo yëngatu ci wàll woowu. Hmm. ma ne loola waral nag. bi ma gars yi ne waaw aay ngeen ko télé yi. infidèle dootu fi daw. waaye YouTube a ngi fi ma ne leen procureur a ngi fi. alors moo tax nag procureur bi. alors comme que pare nañu ak Babacar Diagne. kon kon daal euh, kon a déggee. bu mën a déggee maam fulla jiñ jëmbatoon si bi Assane Diouf di leen saaga bañ man koo téye si YouTube bi fulla jooju nañ ko jëmbat si képp kuy sumeeti si si YouTube bi. voilà yow yow yow jëli nga affaire bi. loolu affaire balaa yàgg incha allah di ngeen ñu dégg ci procureur. waaye dañu ne woon ci diggante bi ndax procureur dafa demoon Umra. Hmm. ci diggante bi dañu ne woon comme que mënuñu toog xaar procureur. Hmm. Euh, dañuy def ñetteelu jéego bi ñetteelu jéego bi moo doon direction de la cinématographie foofu la ñetteelu plainte bi dem. ñetteelu plainte bi. maam Makhtar voilà directeur de la cinématographie. Hmm. ñu ngi koy gërëm bu baax Germain Coly jot na suñu plainte. Hmm. talaata ci ñetti fan. après convoqué nañu entendre nañu. Euh, atte ba mu joxe itam atte euh, nangu nañ ko rafetlu nañ ko atte bi moo di. képp ku fi defarati série mm-hmm. théâtre mm-hmm. film mm-hmm. ak xeetu dégg nga xeetu kii bu mu mën a doon bu war a jàll ci télé yi balaa ngaa taal machine di filmer yoon sas na la nga jëkke direction cinématographie déposer lu ñuy wax demande de tournage demande d' de tournage maanaam di sàkku ci direction de la cinématographie ndigal pour ñu may la nga tourner sa film sa série wala sa la. am na solo Mame Makhtar la joxe autorisation. Mm-hmm. ba nga commencé tourner. Mm-hmm. boo tourner ba série bi jeex. Mm-hmm. ba ba tey euh, euh, libéré goo de. doo dem di ko jàllale télé yi déedéet da ngay delluwaat direction de la cinématographie wan leen ko. am na commission de visionnage bu fa ne. ñoom ñoo koy xool xoolaat ko. seet ndax sàmmonte nga ak sart yi. Mm-hmm. maanaam doo fa nekk di futti jigéen di mm-hmm. toroxal jigéen mm-hmm. di wane eh, loo xam ne dëppoowul ak suñuy aada ak suñuy cosaan bi ñu gisee ne sell na ñu daal di la defal loolu ñuy wax visa d'exploitation noonu lañ koy tuddee France mais fii Sénégal ñu ngi ko tuddee quitus bu la joxee quitus nag signé ko tampon ko moom Germain Coly am na quitus boobu ngay jël nag yow borom sel bi nga doog a dem ci télé yi waaw li ñuy tëjee sànq si ngoon maanaam ñëpp nga ngi waxtaane benn vidéo boo xamante ni ay xale yu ndaw ñoo ci nekk ñu ne dañuy théâtre ña ngay sëy maanaam ndax sëy la ndax xaja ah, ah, ña nga ca ba pare ña nga summeeku summeeku ba ni dung sax nekk ci ab sëy yaakaar naa ne am waaye naa la ba jotoo koo xool léegi yéen da ngeen di bëgg a bàyyi gone ñuy théâtre di summeeku ñuy ñuy jégglu seen awra yi si bitti ñuy jégglu wala daal dafa jot ñu ne ko amatul mi at doo fi suyee théâtre ñu tëjee loolu non xam nga ñoom dafa am euh, pexe caay-caay bu gaa yi dugal ci seen mbir yi dañu ne. Hmm. comme que maîtresse d'un homme kenn xamu ko woon. waaye ba Jamra déposé plainte ci la siiw. waaw waaw waaw waaw. alors nee nañ ñun itam. Hmm. nañu ko nañu ko jéngu rek. Hmm. daal di def toj-toj Jamra yuuxu. affaire ba siiw ñëpp a dem xooli ko balaa balaa balaa pënd bay wuri fekk ñu am ci suñu xaalis loolu mooy seen pexe waaye bii yoon Jamra daf leen nax. ñun dañuy rëq seen digg ba noppi doog ko siiwal. très <laughs> xam nga noonu la ñuy def ak infidèle ah infidèle xam nga ba ñuy déposer plainte seen ak kenn yëgul waaw waaw dañu jaar ci suuf amul communiqué délégation ba amoon daaw sax ñoom sëñ Bassirou Mbacke ñëw hmm. ñoom in imam Aliou Dia ñëw hmm. ñoom in Mamour Fall alors ren amul loolu hmm. sama jarbaat lay yónni mu jaar ci suuf ndànk déposer plainte bi ma daal di woo directeur CNRA Babacar ne ko plainte bi ñëw na Babacar jot ko rek rek seen digg ne leen bu mu dawati ci benn télé après nag ci la jam la def communiqué siiwal ko booba fekk daan bi alors ñii ngay wax nag mhm. bu ñu sonnal seen bopp mënuñu fexe ba Jamra defal leen promotion ah, dinañ leen jaar ci suuf mhm. rëq seen digg wan leen ne ñu nit ñi bu paree nag ci lañ koy doog si siiwal incha allah. kontaan nañ maam Makhtar xam naa ne kon dañ lay bàyyi nga tàggoo sa xarit sa Ndiogu mi ngi lay yónnee nuyoo ak son yi bu jóob bu ko defee nga tàggoo beneen yoon nag dinañ dikkaat si yeneen incha allah rabbi balaa semaine bee jeex wala après semaine bii di ñëw incha allah. waaw jërëjëf euh, Baye Assane euh, wax dëgg yàlla. waxtaan wi eh, li wolof di wax rek lu neex du day hmm. ndax yéen da ngeen tàmm di duut baaraam. Hmm. Eh, loo xam ne mooy li lëmbee réew mi li itteel askan wi. loolu hmm. moom mooy seen manin. yàlla na leen yàlla dëgëral ci loolu. ndax yéen doo leen def mukk hors sujet. yéen li itteel askan wi rek fa ngeen di duut baaraam. kon nag waxtaan bi ñu waxtaan. ah ñu ngi ñaan yàlla mu toftal ci ay résultat saay saay yi defar eh, vidéo boobu nga ma yónnee. bu ñu yaakaar mukk Jamra Jóob di talalali làmmiñ nit ñi xam leen mhm. dañuy jaar ci suuf def ñoom la ñuy def ñoom ba ba daa ba ñu daanu ci suuf mhm. comme ni infidèle daanoo ñu doog ko siiwal insha allah kon nag yal na yàlla barkeel seen liggéey amiin amiin amiin yal na yàlla def eh, eh, eh, jàmm ci réew mi te làq ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah maam Makhtar Gueye bu jam Jamra mi ngi noonu yàlla defal ko ay ndam yu bëri nag si liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey tey it boolewu ci ay wax wax dëgg yàlla eh, jàmbaar la liggéeykat la lu ne dina ko dégg waaye lu mu si man di doon li ko tax a jóg rek la xam ànd si nag ay nit ñu baree baree bari pour naka la ñuy def ba Sénégal bokk ci réew yi jiitu si wàllum wëloor tañu wàññi bu baax sum silib bi kiris tux bi naan bi sàcc bi fen bi tëdde gën a yi lépp loo xamante ni daal day yàq waloor ñu ba ko si loolu yi la maam maxtaar nekk ñun ñiit si loolu lañu nekk kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni ba suba incha allahu rabbi ak beneen numéro Baye Cheikh Fall mu leen di gunge si seen xalaat jërë ngeen jëf mbokk yi